mouvement bu mel ni yees lu jëm sa kanam bi mu dooree yàggul gaa waaye bu ñu xoolee ci wàllu taxawaay yi ñu am ci élection yi mu mel ni bi ñu tolloo ci dëgmal élection yi coow lu yëpp ci Rufisque Ouest mouvement yees lu jëm sa kanam lañ doon wax wala buntu bi Rufisque Ouest lañ doon jàmbat moo nekkoon coow li moom moo nekkoon jàmbat li ndax tey bu ñu seetloo ne ñu ñu doon jàmmatloo dem nañu si ba am jàqare si ñun gaa nag ah, bokk nañ si ñi njiitu félicité remercier ñaanal leen ngir ndam li nga xamante ni moom la leen suñu borom jox mu jig leen te ñu doxal ñu gis si ne am na ay ndëq sërëx yoo xamante ne amoon na ci ah pour yenn yi jot nañu koo teel a joyanti waaye yeneen yi tamit a ah, day dokk si li nga xamante ne dañu koy jàng gis nañu si bureau de vote yu bëri yoo xamante ne bi ñu xëyee di def suñu tournée une quinzaine de bureau de vote mooy ne mouvement yees lu jëm sa kanam na ñëpp a xam ne ah, laxasaayuwaat nañu fas yéene li nga xamante ne moom mooy élection législative yi nekk suñu kanam